wax ko weesuwul ndax mi ngi jëm ci xew-xew bu rëy boobu nga xam ni moo fi xewoon ñu koy wax bateau le Joola di jëye joo xam ni ji tukkal na àddina kerook fii ci Sénégal ndaw guddi gu tiis ndaw guddi gu metti njàqare ci képp koo xam ni ki yaa ngi yeewoo ci réew mi waaye ku yeewoo bitim réew te Sénégal ñor la bu fii ñu toll man sama xel dafay janeer bato bi ak ña nga xam ni ñoo des ca biir dama leen di janeer ndax xam rek tiis wi nga xam ni moo nekk ci dee ci condition yu mel noonu nga xam ni bala ngay wuy ji suñu boroom rek da nga jànkonteeg njàqare ak metit ak tiis wu doy waar ci diggante minute yu gàtt di ñaan suñu boroom tabaraka wa mu joggi ci kàddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen seeni bàkkaar te ci biir yërmandeem waaye dafa mel na ba tey góom bi wérul ndax su fekkee ne dangaa gaañu ci mbir su fekkee dangaa loru ci mbir te loolu nga xam ni moom moo la lor nga wéy ba tey di gis mu teew ci sa kanam dafa mel na kon loolu tubaab di wax le problème reste entier ndax su fekkoon ne li nga xam ne moo fi indi woon batu la joolaa loolee fexe nañu tey ba mu gànt dara dootul metti ci xolu ñi nga xam ne ñi ñoom la ci seeni mbokk faatu seeni xarit seeni am di jam waaye dootul am daanaka jeexital parce que dañ koy daal di xam ni saafara jóg na ca bu ma juumul deux mille vingt quatre deux mille quatre la woon ñu ngi ci deux mille vingt quatre li nga xam ni moom la ñu siiwal ci statistiques yi maanaam ci nattukaay yi mooy at mu nekk lu mat juróom-ñaar téeméeri nit daañu gaañu ci accident am na ñuy wax deux mille morts ñaari nit ci bateau le Joola kon mu mel na kon ci boobaak léegi fukki junni ak ñeent quatorze mille dee nañu ci accident diggante batolo Joola ak léegi kon lu muy tekki mooy juróom ñaari yoon batolo Joola dee nañu ci ak accident suñu borom de tabaraka wa taala lu ko neex mu def waaye loo gis day am sababu doomu aadama ca biir te ñun bés bu ñu suba ñu ngi créer ay sabab accident fépp la am ci réew yi la am waaye bari na ci accident yoo xam ne mi ngi xew ci suñu réew mi càggante tepp ngi jël ay permi di ko jox ay nit ñoo xam ni ñi xamuñu sax ko de mu route ñu lijjanti ay permi man sama doom am na permi jaar na fa mu war a jaar ci wallu jàng dawal léeg-léeg ma ànd ak moom jox ko toog ci wetam naan ko defal nii defal naa teggil sa tànk defal nii ndax dama jàpp ne ba tey dina des pratique ci moom joye yi ngeen di gis ay xale yu ndaw yor oto sallaañoo ci biir toog ba xaaja guddi ñu koy daw cent quarante di wone seenu fit ak seenu ñaata yoon ngeen ci dégg kaa yu mel noonu fii ci ci Ndakaaru ñu dee rayaale ay nit ñakk yar mooy problème principal bi nga xam ne moo nekk ci accident yi ñàkk yar te ñi nga xam ne ñoom lañu yàlla dogal ñu teg ci seen loxo sañ-sañ bu ñu mën a jubbante nit ñi jubbante ñu musul am sul am waxoon naa leen fi ne leen ay nit wala am réew yar ak yar la soxla yar mooy teg nit ci yoon yar bi ci des mooy bu tegul ci yoon nga wuti fàq sab yar jëflanteeg moom réew moo xam ne nii yaruñu nit ñi ba noppi ñàbbu ñub yar di leen jubbanti lu baax du fa am lu baax du fa am parce que nit ñi loolu la gëm li ñuy def daal mooy bu xew-xew amee ñu jóg teel teel rajax rajax wanewu journaux yi ñëw rajo télévision yi ñëw dégg nga ñu <coughs> wax ngeen jéggal ñu ñu wax a wax a wax def ay promesse enquête en suivre à suivre nangam nangam jeex na buñ ci jugee ca ëllëg sa fàtte nañ ko ku dee yaa perte te nit ñi baaxuñu amul contrôle routier boo xam ne bii dafa permanent pour nit ñi di ci bàyyi xel te bu fekkee ne contrôle boobu am na amul am na sax laay bëgg a wax est-ce que jaarale nañ ko yoon ndax corruption bi moom lu waay mën wax ñemewuloo koo weddi moom ci mbedd yi ci tëli bi amatul sax nëbbu léegi amatul sax nëbbu man ñëw naa bay dugg Tiwaawan alkaati bi karma ni ma da dama lay da def infraction ma ne ma xam ni xel na defuma infraction du ma fa nekk di guddal ma ne ko ñaata lay ko fi mu daal ni ma ah noonu boo ko bëgg a doxale ma ne ko nan nga bëgg ma def ko mu daal ne gees daal di bindu kayit jox ma ma dem fay continuer sama yoon jàmm ne ñooy fii ci buntub Louga am na keneen ku ma ko def ba ma accès ak excès de vitesse maa ngi ànd ak sama waa kër excès de vitesse la ma wax ma ne ko bindal mu daal bind ma daal di fay wan ko ginnaaw te yooyu yëpp man xam naa ne booba dafa bëgg a def rek zel te xam na ne duma ko fay ci loxoom indiscipline notoire ci tëli kenn du ne sa morom sa yoon wi jaar fi ci mentalité mooy sous développement sous développement dëgg dëgg dëgg la fan yii ñu toll ci wax jamonoy gàmmu gi dem naa tukki dem naa Tiwaawan bi ñu nee suba a gàmmu yoon wi yëpp ay motaara ngi jalone lu tax loolu wërta am ci bës boo xam ne bii bésu bu dul xew ñuy jalone boole koog ñeneen ñi nga xam dañ leen di teg ci yoon wi dëkk bu mag bu ne am benn benn benn escadron gendarmerie xaw ma escadron lañ koy xaw ma benn unité bu taxaw di contrôler bu dee biir dëkk yi ñu jox alkaati ñuy contrôle contrôle bu mag contrôle bu mat carburant bi nga xam ne moom lañuy ñuy jël jox ko ay nit ñu def seeni cortège di wër di wax waxi caaxaan carburant boobu ñu génnee ko jox ko motaar yi ñuy daw ci mbedd mi ak oto yi gendarmerie ak oto police bi waaye toujours ay solution pauvre rek la ñuy indil solution pauvre pauvre moom am na loo xam ne boo ko lijjantee ba mu génn ci rek waxatul dara auto sur oto njaga njaay yi sax pauvre ku leen ne kaay leen surchargé ko ñu dugg ci parce que amuñu pexe soo ci duggul ñu ñu bàyyi la fi dem seen yoon ñaata camion gay seen ñu yeb ngooñ wañaaru bay waaj dem ci tëli bi bërki démb gis ngeen ko wane nañ fi benn bus boo xam ne bii bus ba day wañaaru di wañaaru ba faf xaalangaan ci biir lu senegal gii Sénégalais daanaka ay xar yu dagg lañu ngeen baal ma baat bi fu leen neex dem lu leen neex def lu leen neex doxale amul benn benn benn benn benn yar bu ñu imposé nit ñi dëkk ak ñoom sax nattu la ci ki dëkk ak ñoom dañuy nekkal seen bopp en danger ñoom seen bakkan lañuy la ñuy taylee tey newaale nag bakkani jàmbur yi Louga gii bés bu ne nga dégg fi Jakarta bu daw ba dal ci nit dal ci nit damm tànkam damm loxoom wala mu faf ray ko kenn xamul nu mu tolloo bërki démb rek suñu mbokk ma fay rahmatullah aley noonu la ko jakarta bi firé mu daanu boppam toj mu dee parce que kenn du punir nit ñi kenn du leen sanctionné daaw rek dégg ngeen ma fii ma doon dénoncé ay camion yoo xam ne dañuy dem tànk manque ndox ci biir dëkk bi am na ca buntu Louga fu ñuy wax station d'épuration ca buntu Louga boo fa jógee jëm Njaañ station bu mag la fa la camion war a dem bu ñu manqué yóbbu ko fa ku ci manqué kër Serigne Louga foofa sori na nga kalaat sa carburant wala defe naa ñett wala ñeenti téeméer yooyu fay ci bunt ba nga ne loola jaraluma ko daal di génn ci àll bii nga xam ne moo nekk ci ginnaaw kër Serigne Louga te da boo demee ña ngi koy def ca ca booru booru penkub Louga ña ngi koy def ca soow Louga ña ngi koy def fu parce que tout simplement dañu amul xel ay rabbi àll lañu ma def ko waa environnement topp leen ba jàpp ca kenn piniruñ ko buñ ko sanctionné woon sanction bu saf-saf mu fay trente mille wala quarante mille nga xam ne ñetti journée wala ñeenti journée bi liggéey lañ koy teg boole ko teg ko ci daan yoo xam ne fukki fan ak juróom dana ko tedd ca kaso bee moom ak i moroomam dootuñu ko def nga dem di di di ko sorti en pleine nature en pleine nature ñu jàppaat bañ ko bàyyee mu dem bërki démb fi mu ne nii waa environnement ñu ngi may dégg ak service di d'hygiène ñëw nañ fi demb ma yóbbu leen ba ca site ba ña fay sotti ba tey kon récidive kooku buñ ko jàppoon lan lañ ko war a def minimum trois mois de prison ak cent mille francs d'amende léegi jàmm am léegi jàmm am façon boobu moo war a dox bala ñuy daaneel suñu kàddu di remercier wala bokk di jaajëfal ci waxinu wolof gouverneur Louga bi nga xam ne bi arrêté na suspendre na activité ak nawetaan yi suspension bi dara waral ko lu dul dóorante saagante tëkkoonte te àgg nañ ci mën nañ fi nit léegi ci nawetaan yi am na sax du ñàkk parce que am na ko xeer lañ ko dóor ci bopp bi daanaka fa la jógee tàqalikoog sagoom ci lan ngeen ne da ngeen di fo mu jëw leen lu dul di yóbbante nit ñi àllaaxira amul ci menn réew moo dégg mu su mu développé xool leen ko nag ci internet ak fu leen neex nawetaan Sénégal rek la am parce que ay xale yu ñu yarul ñoo fi ne mag ñu xamadi na ñoom sànni seeni doom yi bu bésu football amee ñëpp toog ci nen ñëpp toog ci nen bu match ba jeexee àddina tukki yi façon nag na lay mën a ànd réew muy soqali ko ci tënk daal ñun ñëpp ñu ngi ci biir batu la Joola bés bu ñu xëyee suba ci batu bi lañuy yendoo bés bu ñu xëyee suba rek ñu ngi ci loo xam ne lii moo gën a dangereux batalu joolaa ñun ñépp nag rawatina nag baadoolo yi rawatina baadoolo yi ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di ngànk nguur ñoom lépp luy assurer sécurité doomu aadama ñu ngi koy faggul seen bopp di ko faggul seeni doom fàggul ko seeni jabar bu ñuy dem marché ñun kay lañu ñu tayle suñu dund ñu dee ak ñun na yam dund ci yam tant pis la wax te yoonu kenn nekkul ci suñu situation sàcc yi di ñu rey oto yi di ñu rey moto yi di ñu rey ñu nekk ci xatar bés bu ne ñu lay teg ci situation boo xam ne bi mën na nga loru ca loru goo xam ne gii du jeex bërki démb rek sama benn xarit ci yoonu Mauritanie bi ma nga ca ndar ba fii ñu toog di wax moto la yor am ku dikk dër ko jaar ci kawam daw daw papaam def na hôpital fukki fan ak juróom-ñaar ñu soog ko génne jógeegul ndar fi mu ne nii lépp di nekk ci réew mi nga xam ne danger en permanence yii nag tant nguur jëlu ko en au sérieux tant que nguur jëlu ko au sérieux dañuy gëm ni ba tey rek ñun dañ ñoo tayle ba tey dañ ñoo tayle man loolu laa gëm tant que lii jëluñu ci ay mesures yu drastique di pini nit ñi ku rey nit ñu jàpp na tëj la ci kaso bii muy moto muy oto parce que yëf yi mi ngi ëpp nag ëpp na sax ba pare xanaa kay fiñ toll dañoo xamatul lu ñuy jooyee rek ndax rango ñuy fer asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.